kan bi jox leen na seen noppa ndaxte Kairó Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li na bu dee nit taxaw la tàllal la loxo ah, dama ne askan bi jox leen na seen noppa ndaxte Kairó Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag na tey weer bu dee nit taxawula tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kayra Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi koo jaayee foofu sa Lamine Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junni dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy euh, fay nanka-nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benn weer ah dama ne Kairó Show Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw ba nag Kairó Show Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu Salameng Kerewan Reconciliation and Reparation Commission, which is the TRRC, have been going on for months, having witnesses coming through to testifying in front of the commission. Yesterday, the, the former vice president, which is Madam Aisirun Jai Sedi, came before the TRRC and testified. and today we are going out on the streets and talk to the. Seetu Njie Seydi ak naka la gaay gisee testimony bu mu def because testimony bu mu joxee dafa rimbe réew mi ku nekk di wax ah, ñëw na nag lu ko laajte most of the question dafa wax ne I cannot remember maanaam ah, fa mënut a fàttaliku lu dem si noonu am na ñu wax ne because doomam bokkut si am na ñu wax ne xëj na dafa màgget moo tax mënut si fàttaliku waaye duñ def dara dañoo àndaa yéen de waxtaana askan bi gis seen ak seen gis-gis lu dem si testimony bi. Aissatou Diallo Gambian Talents TV may jaay jëfal suma caméraman Binak, Mr Jambam Mumbai force in Fonga, Jai jaay jëfal ko balaa muy def liggéey bi aɗigol mbeɗa ka muy mbeɗa kala muy mbeɗa ka jiɓirtele ɗo min keta TRRC ti mi alan ko anata jang ay kari jama ke jang kabri nga commence mo jama nata nan TRRC ka diyamu ka testimony ke ka kumo foye ke ñinin ka le mi alan ko walla tambita nun a min keta fomo fomo government time o ti ye ñinin ka question o le min tambita je a kunun de nga mo sino min keta na fomo president fomo vice vice president min keta aissatou ndiaye sédidi anada trc a ya ñinin ka ñinin kaaro la min alon ka siyata a bi de mafindi la banta nim baadi kaca min alon ko ye trc jibe wala min alon ko ala moy wala hani ma ma jibe bari ya kibarol to ay tele jeru to ye ala testimony ñi yaaje ñaadi a alna baadi ma ibrahima jammanga anina camera caméra ledi min ba caméra ko ma aissatou diallo mo bulam mafindi la sare ko nga mol ñinin ka isa fo mole trc aissatou ndiaye sédidi la testimony itala ye ñaadi sare ko waaw ah, salaamaaleykum na nga tudd man maa ngi tudd Daouda yi waaw ah, Daouda ma Aïssatou Ndiaye Siré ku nekk fa former vice président bi Gambie dafa ñëwoon TRRC si testify seetaan nga ko non seetaanu ma ko de waaye déglu naa ko ah, boo ko déglu yow naka nga gisee testimonial bi ah man de yow dagg-dagg li ma ci déglu man li ma ci jot a ko parce que li mu normal wax na wax ju correct te it wax na waxi nit parce que dégg naa ñi ko laaj lu bari ndax yëgoon nga ko mu ne la yëg naa ko waaye afta cos tey loolu enu na maana ndax mbir boo xamee ne yow joxe wala ordre bi du de yaa joxe woon ordre bi wala ki yaa yónni woon diw ne leen dem leen defi nangam defa loolu waaye ki dem dafa def ba pare bu fekkoon moom bàyyi président la léegi lu jege ci wàllu kaaraange gi dem fële dama yàgg ne si kuñ dénk wàllu kaaraange gi kooku moo war a mën a xam ci loolu dara ci lu ma foog man suma xalaatu bopp laa ma li am suma xalaatu bopp laa jàpp naa ne ki joxe ndigg ki nekk ne moom lay wax ne moo yore wàllu kaaraange kooku suñ su su yëg di am da yaakaar naa li ku ñu rey war nañ koo yëg kuñ tocc te war na koo yëg ngi dégg kuñ rëy war na koo yëg kuñ tocc war na koo yëg waaye ki nga xam na nag moom baay président la baay président bi moom su ne yëguma ko moom mun na koo yëg moom mun na ko def waaye ore bi mën naa ñàkk a jógee ci moom te it wax dëgg yàlla man daal li ma dégg a démb moo wax bokkuma si ñu ko ñaawlu nañ na nag andi fottin dina wax dinañ ko waat mu ñëw gars nag first one bi da ngaa ñëw wax li seconde bi nga ñëw wax la le ci li rombaale li ma gis man gisuma ci man benn problème boo xam ne ni moom war na ko see mën a am ah, waxoon na tamit mu ne liggéey ak former président bi Jammeh si government mi dafa miiti torop wante ñeneen tamit dañoo wax lu tax mu nekkoon di liggéey ak fekkee ne liggéey bi dafa miiti lu tax moom bàyyiwut waaw xam nga doom li olof di wax kenn ku ne moo xam màtti lalam te ku ne xam ne yaay jàmme lu mu lu ne yaay jaame dicté la woon dictateur woon kenn ku ne xam na yaay jaame liggéeyam tey xam nga ay mbiram loolu ñun gambien si suñ ci waxee loolu di ci waxee dañuy wax lu ñu neex rek waaye yaay jaame ku ne xam na ne neew nag moom du heure boo bëggee bàyyi bàyyi du heure boo saa si loolu tuuti loo ñu si mën a wax si loolu lu ma ci mën a wax mooy ñaawlu ko rek kos ay xalé lañ doon am nañ ñuy luñ bay luñ sen sen gis lu xamni ni du yoon ñu taxaw diko ko di ko pour ñu tek ko ci yoon deug la euh ñun dëkk bi fi li problème bi di olof di wax ñi gam ak ñi ras dem dañoo bokkut buñ na démonstrer am na ño xamni ne taxa jox waaw ndax kër ak bu xalé yi di génn am na ño xamni ñi ci bitig jàmbur di dajji waye nga bu wa li ñuy wax stade ni la wax xalé yi school yi la wax waaye fekk du xale yi school yi ñam yi ñoom na leen naqari doon def waaye nag puskul kenn du ko jël teg ko si doomu aadama ndax ki ku ne gis na lu xew ay nit di daanu ci mbedd ngay xool doo ko mën a rafetlu mooy la mooy nekk sa mujjanteelu kaddu bi ak ñun ay suñu lay seetaan sama mujjanteelu kaddu daal mooy mooy gambien si ñun gambien si nañ gëm suñu bopp doom nit gëm sa bopp dafa baax te ji nga réew mi politique waxi xëy na ci radio yi wax politique bi nii politique bi nale politiciens yi ñoom ñëpp a yem Yaya Jammeh woo Adama Barrow woo ñëpp a yem ñi ñëw sa ñi bëgg ñëw sa ñëwaguñ sax ñoom ñëpp yem dama understand fi may waxee bu baax nañ wax nit ñi ban programme lañu war a defal réew mi waaye na ci radio bi di xas Yaya Dabo di xas Adama Barrow gars yi Adama Barrow di xas Yaya Dabo waa APRC di xaskale waa Mama Kandé nafale waa kii de loolu defarul réew dëkk bi yoon dëkk baa ngi ni yam yëg ko ñun ay taxi daay fa lañ boo gisee moto yi ne réng taxaw ci dëkk bi amuñ yoon yoon yi ñu ngi ko war a defar àll baa ngi nii baykat yaa ngi bay seen ñu ngi ci àll bi depuis si ñaata weer ñu ngi ci àll bi di bay bay nañ bara bëgg a dee gisuñ kenn ku dem ci àll bi dégguloo waa àll bi jàmbat kuréng dégguloo ñu jàmbat ndox dégguloo ñu jàmbat lenn waaye lu ñuy àll bi lu ñuy jàmbar mooy ku ñu dimbale ci suñ mbay mi nañu dimbale ci engrais ñu waay ji dimbale ci jiw nañu dimbale jëndal ñu suñ price gerte gi price bu baax waaye àll bi léegi nit ñaa ngee bay dañee bay ba rëbb a dee kenn faale wu leen doo dégg kenn kuy benn opposition bi wax si radio bi ne mbay mi ne li mbay mi ne le mbay mi ne le li ñuy wax mooy Adama Barrow nii three years bi ne le yaay mi nii ne le ne le ne le three dañoo sonn si three years nañ xool liy defar réew mi waaye nga ñëw everyday nga ñëw wool fële wala génn programme bi ki la ñëw wax fii wax fële politicien bi ñuy wax nii dara lañ ci gëmul ñoom ñëpp a yem koo ci ku ciy wax ba falu bu ëllëgee mooy raw kii yaa ma naan léegi man li ma miin mooy suñu waxee ne nañ fiy génne baro ci three years bi léegi two bi nga ne nanga fa teg keneen nga ñu léegi li xew baro dafaa yaaxa agreement bi jaax na nañ fi teg keneen two léegi ki nga teg two nga agré ak moom two years moom mu dem tuuti si jeex mu def ni baro ne léegi dama damaa mottali coow du wat fofu ndax gambie am nañ xaliss bobu nonu bu ñe war a def fi nañ def élection fii defaat fële élection denk ki bu dee denk dénkaane la ki xass yor nañ ko jox mu yoré ko bu five years bi jeexee su dee ñom lu ñe wax dëgg la si ñam kenn ko ne samp sa candidat bu la bu la mbooloo mi gëmee wooteel la mais li tax doomu aadama li tax nit ñi di la top yow ya koy jëf waye du taxaw ci radio bi di xassé Star FM nii lañ def QTV na leen la def déedéet bu QTV di wër di liggéey Star FM toog fële di di kaay di critiquer di def la li QTV day dem. defar réew mi réew mi jafewut a defar te bàyyi xaste wante bi amul benn njëriñ si nga tey ji bu ñëwee fi ñaa la trier dañuy génne nii trier yow mos ngaa gis eh, démonstré te am nga xool ñu ne booy bale sol kii bu mbuba bi doomi la yaa daaw la mos nga koy gis yow mos ngaa dégg ñu ne la ndóobale Mohamed Diame koy gis. do fa gis doomu Khalifa Sall do fa gis doomu Sidiya Diatta do fa gis doomu Mama kande So ñu fay ne sarak suma doom sama kenen ñi dem ñu door ñu telli li ñu na nañ génne boy si Boy yi ñon jabar ki dem fi di leen doon yobbu ko di leen atti gis nga ci ko xamne dañ la doomi ki la nañ am helat dugal dara suñ bop ndaw yi nañ am fayda doomi baado lay ñoo nyi ide ci politique bi sa bay mu nga na le tok amul liggey amul dara këram sax fenn bu mat amul ko ñu war la génne ci mbedd jox la bénn t-shirt ak 50 fifty yi rawati na xalé jigen yi li nga xam ya ngi wara tollu ci sey wara tollu sa digg jang ñu solal la bénn body jox la bénn ki nga tak sa moto ñu lay di param parami di wax li nga yaq sa alal li la yaqulo ci réew mi sa alal nga yaq liñ la yaqulo ci sa alal nga yaq bi bagage yi ngay def ni government be ko fi def boko ko fi yàqeetee bo léegi dañ koy tegaat sa kaw dang koy fay bay force tey bu ñëwee ñu ne gamtel bi lakk nañ ko def nañ ko fële ëllëg nga ñëw ñu saako maalo two thousand dollars di nga ne government bi dafa soxor soxorut de yow yaa xamul li ngay def nit da am xalaat sa bopp da am nit ñi nañ eew te xam ne politiciens yi dañuy bëgg a yuus di ñuy nax tey jii koo ci toogat mu ndaxaw fii di radio bi di la wër si di la seet si su faloo boo ko joxee loxo mu raxasu téléphone ndox ma ba nga ko doon woo wooyee boo dootoo ko am soo wooyee kele mu la ndox ma bi nga woo ko mun a am nga fekk ko ci place na ko mbër bis sàngam dama la dajoon nangam mu yore waaye afta dama bis waaye dinañ gisee dootoo ko gis nga ne foofu da mat naan di ko maam moo fi newoon maa ko doon doxal li ma mooy sa ñàkk fulla nit da war a eewu gëm sa bopp tey yéen a ngi nii ay ndaw ngeen yéen a liggéey doo leen nangu nit di leen jël di leen it yuus di leen dugal fële waaye nag am ngeen faydu fulla joon mi nag ku taxaw ci mbedd mi di wër a kii ngeen jël seen caméra ngëb seen maay daw topp ko laaj ko lu xew lañ leen fi tegee makuta yaba mafuta yaba kunu um, nyin uh, um, min kele fomo president asiru njaya sila nata nun tiara si ka testify ya, ya jibele wala ya lamu ba ha kunun de nga atara na banna bari nga lasu wano nga wotara jele aye ah, min tarandi yala yala testimony je nyaadi le a nga je nyamen den te sondo moye min dinna wala mu nyindi ko nyanta nyin condition o min be tama kan ñanta bulala le kata be dami jongo dawo da nin ku min keta jibon di ngolo nga ko ko no la ñanta yom fo di la ñola la Uh, aya fo fanan komin ko demonstration min keta ñan 2000 ya 2000 min keta april 10 dani april 11 demonstration mi yalon ko mo jowal jamal fudi ni ji ada ya fo ko min ko wo keta wato min ata mo kala kalamu de ite la ko min ko ko min ata ba ke kan ata mo vice president o do tema ma kala kalamu do mo fudun aba ayo fo mo ko ken wol ana ye kuma kenseŋo le faaman to ñaafo woto kaatun kuuta keno la présidenŋo ye kuwo miŋ kalamta ate maŋ kuu kalamta woto wo maŋ ke kuu sotoyin ti aye kuu kalamta jeeni ye a loŋ joŋo i ba baluuriŋ toña fodoro i niŋa la naa la kiilaate moo la kaatuŋ toña mu kiliŋ ne ti niŋ faate toña lemu niŋ baluuta toña lemu woto loo toña kaŋ doro alla ye miŋ safe wo le be ke la bari a kana kuma fo miŋ ye a loŋ ko a maŋ soto miŋ sotota ye wo ala ah, testimoni fana kono kununga ya fo komin go do ko pour ka uh, ini yaje mel ko a kolera bagal pour mon yaaje mel ko fene doko kan mun doko demi anka mon son ya ko kolera bagal bar hanen kabi ada fana kero vice president mi alonka mi dem sa kunda kono ay sanyi mo mbé ke nyunjele ha fo ala ke ya sa ke wo satin ka katu yalon ke ni mo tata fa ke ya ta kuwo dolu ja ka sai dindi ya sa position bar naka ma kalamta ay fodro mi yalon ko kuso to balolo ha bar kalamta bal ya kumante Ah, ah, a kalamtal a saymono ma kirelo kuma labaŋo ti be jibe kaŋa ni samu yamar la fono gambe gambe moolu be nsa min fono gambiyanolu ye doroŋ nŋa dankeneyata baluwo kono dankeneya wo le maa beti ti kaatu uh, peresidaŋ adam baro alla le ye dinna te niŋ ala ye la waatoo ba bita le nŋa wo dankeneyata doroŋ aye i ye a min sayin wo i si kayra kono nŋa bula ay ye dookuwo bari ñiŋ falim faliŋo bi i be kono ye wo le je min bina so min ma wolon so position min kono bi nga bula ye do ko ke wo le fisiyata nga fo ay buli 3 years o ka min fo nte den dati je andu ni ngan sa wo soto mo beto malla fi ay ke nga sey ko ma doron nga la ko ala ye min safe wo le ka ke amam min safe wo bi ka ke so 3 years o nyinna ko nga wo landi nga ñaalo man saka mi yaalon ko alay wala dinna nga wo dankene ya tamandi ah baraka ba man babakar Cissé yeah. Uh, Mr Cissé seetaan nga TRRC démba uh, mooy uh, former vice président bi Aïssatou Ndiaye Seydi lum testify waaw seetaan naa ko seetaan naa ci tuuti daal waaye li ma ci gis daal mooy ne ah comme que ñoom ñoo fi newoon te dëgg TRRC bi dafa ñëw pour dimbale ee eh, ñi ñun sax ñun gambien ñun dimbale ñi ñun gambien TRRC dafa ñëw pour loolu Tiara bi dafa nek lo xamne ne ñun Gambien si war nañ ci ewo war nañ ci ewo bu ba ba pare war nañu jangal. dañ ci war a jël jàngal waaw TRRC bi lool la dañ ko wara dañ ñuko xamul rek ñoy wone ne sibi bi ni nii baaxul ni waru rek dede dañ xamul ana sa bitik sax soko joxe nit mu nek ci nek ci nek ci ba at bi je war nga ñew nako nañ nañ nañ nañ cek ah lu mbon bon war nga ñew nako nañ cek so lo em ni nak rew lu xem ni léegi réew ay nit dëkkee ko ay gor ay góoru yàlla dund ci ñaar fukki at ñaar boo xam ne nii kenn xamu ci lu ñuy dund lan la war na leen ko ñu war leen am lu ñëw lu atiyaara ñëw pour leeralal leen leen si li ngeen doon dund lan la waaw lu baax la wala lu bon la lu rafet la wala lu ñaaw la kon war nañoo ñun war nañoo gërëm tiyaaraar si ba pare war na leen di fonk war liggéey bi war na continuer TRRC ñëwut fi rek pour government bi wala government bi passé wala ne TRRC dafa baax pour indi government dafa baax si réew mi su ko defee réew nit ñi nit ñi dëkkee réew mi war nañu xalaat ne TRRC bi dañ ci war a jàngee waaye waruñ koy ŋàññi dañ ci war a jàngee bu ko TRRC dafa ñëw pour jàngal nit ñi. Ah, waaw ah, Demba xaw ma si ay kaadu yam dafa ne moom yëgut April 10 and 11 demonstration bi yow naka nga gisee loolu. loolu moom. loolu moom ku ko dégg it koy dégg rek waaye doo ko nangu doo ko mën a nangu parce que lu am ni tey ñu ne président vice président président bu nekkul vice président moo fa war a nekk soo lu am ni Gambia président nekku fi tukki na lu am ni vice président nekk fi dara xàppoon nga ne man xaw ma ci dara wala yëgu ma ci dara wala éblewu ma wala loolu moom xel mënu ko nangu. waaw ah, mo moom mo kan mënu ko nangu te dëgg la def lu aduna bi soo ko seetloo daal def fi lu rafet moo gën def lu rafet am solo waaye man ni mo ko seetloo ni mo ko jàngatee mooy tey soo ko seetloo ñun Gambien si ñun ñu ngi yoon ci pax moo xam ne daal xamuñ pax mi sax naka la war a nag ñun dañ doon dem ba dugg ci pax te duñ xam ne si pax lañ dugg yëpp ñàkk xam la waaye tiara yi ñëw na pour war nañu nekkati si pax bi ngeen doon dund nii ak nii ngeen nekkoon ci pax bi nii ak nii la pax bi war a demee loolu dañu war a gërëm ci arab si gërëm gambien si gërëm ñëpp ono san waaw loolu moo ci nekk si ay kaddu yam euh, former vice président bi Aïssa Ndiaye Seydi mu ne liggéey ak Yaya Jammeh moo gën a jafe lu nekka te moom bu liggéey na fa moo gën a yaaga si ñu liggéey ak Yaya Jammeh yëpp as vice président masuta resign yow naka nga gisee loolu waaw loolu dafa dépend loolu mu ngi mel ni ci Gambien yi xam nga tey bu ñu toujours dama ko dee wax ñun Gambien yi lan moo ñu sonal mooy dawal interest ku nekk da ngaa dawal sa interest dawal interest baax na waaye dawal sa interest tout mooy baaxul tey soo ko seetloo ñoom ñi fa woon lañ fa woon maanaam ku nekk daal man li ma ko jàngatee mooy sa interest kese kese kese moo la fa tegoon waaye du leneen du réew mi yow même du sa jarbaat du sa oncle du sa ñu jaay eh, naka sa sa raka duur sa mag duur sa sistas parce que tey fi nekk soo defee benn góor lu naqadi ci Gambia fii pour dafa mel ni yow def nga góor yëpp problème soo defee benn jigéen dafa mel ni def nga jigéen yëpp perdre parce que sa Gambien bi ñëpp soo ko seetloo benn baan ñaar nga laa gis ku làkk olof wala soose wala pour te yëpp ñoo jaxasoo benn place waaye dawal intérêt bi si boppam xam nga bi nguur gi ceeñee sax gars yi na ñu Gambia mën a déet am nañ groupe gu ees ñu ne waaw waaye man ne ñu Gambia nekkagul parce que li tax du ñu Gambia nekkagul mooy Gambia il faut ñu ceeñ xol yi dawal sa intérêt baax na waaye dawal sa intérêt tout mooy baaxut Gambien nag dawal intérêt am rek la gis dawal intérêt am rek te yow intérêt bi ngay daw sax yow si sa bopp yow mi koy daw sax est ndax yow doo seet ndax baax na si yow wala baaxul si yow Gambien bi tay fi nek nga gis ko xamne mu ngi daw on intérêt am xalaatul ci lenn xalaatul rakam xalaatul papam xalaatul mom kon on mom kena intérêt am rek dawal ko rek jaral nako lu nek jaral nako ñu ray sax rakam oo ñu jar ray mam oo ñu ray xam nga da ngay waru di lolu fi nek attitude bobu foog ñu ceeñ ko foog ñun gambien ni ñu ceeñ suñu attitude bobu nunu. mu de Gambia Gambia daron nek ñu Gambia waaye tant que loolu Gambia nek ñu Gambia de dafa mel ni su ma jàngatee si sa ay kaddu euh, moom former vice président bi Aïssa Ndiaye Seydi intéressant moo fa nekkoon moo tax mu yaagas. ñoom ñëpp la ñoom ñëpp ñoom ñëpp président bàyyi bàyyi sa ministre ak ñu ci nekk ku ci nekk lan la am nga fu am nga libre am nga freedom yaa ngi war moto bu ne yaa ngi dëkk fu ku correct xam nga yaa ngi free daal intérêt boobu rek jaral na la yow pour maanaam doo. jéem a xool ndax yow sa sët wala sa oncle wala sa nijaay wala sa papa yi ñu ngi ci problème wala noonu xooluloo yow li ngay xool mooy yaa ngi war moto bu neex yaa ngi dëkk fu rek yaa ngi firi yaa ngi Mumbai yaa ngi am nga yéen a ngi am lu leen neex daal soo man loolu laa ko gisee ñoom ñi fa nekkoon ñëpp seen on interest rek waaye du doon interest réew mi du interest pour nga xool ne lii ndax mu ngi laal suma sët wala suma maam wala suma rakka wala suma. Oh, dafa mën a ne dafa nekk loo xam ne jingalul naa lu lu lu lu xam nii ni rafetul neexut a tëb tëb nettali ko sa na war a demee Baye dina wax dina nettali dina nettali de dina wax parce que xam na waaye comme si testify bi nu mu ñëwee du mun a ñëw rek eh, eh, bien lii mu mun a xam li passé war koo mun a teg si yoon déedéet waaye su delloo waa si te am naa yaakaar ne li ko réer yëpp dina feeñ. te xam nga àdduna fii lu fiy nëbbu lu mu yàgg-yàgg dina feeñ xam nga tey bu fekkoon ne tey bañ newoon ñoom si seen digg bi si bi biyaan bànneex bi di xàppoon xam nga boobu mosu ñoo xalaat ne lii dina xam ñun gàmmeen sax xalaatuñ ko xalaatu kenn mosu da xalaat ne loo xam ne vice président assez rôle vice président twenty something years bis dina ñëw ñu teg ko gàmbeen yëpp xale ndaw mag ak gune yëpp góor ak jigéen yëpp toog war a mun a jàkkaarle moom mu toog ay nit di ko laaj assez gambien di ko laaj yow li ñu doon defal naka la demee nii ak nii ak nii xam nga ñu mosuñ ko woon a xalaat suñ ko xalaatoon xëy na dañ doon bàyyi xel waaye non toujours gambien bi loolu mooy problème am waaw nañ bàyyi di dox si on interest nañ seet liy intéressé réew mi ak luy intéressé sa moroom ak sa moroom sa moroom ñu dox ko waaye bul seet sa on interest sa on amul on interest boo xam ne ni yaa ngi koy doxal mu dem turul mun a nekk April 10 11 fu mu la feeka man feeka na ma fi waaye tey fi mu nekk nii man li ma fi yaakaaroon na mu doon demee ak ni ma yaakaar yaakaare noonu la demee ni ma gisee ne noonu la demee yégee ne noonu la demee du du benn parce que man mu ma fekk bundung dee boobu mu xàppoon ñëw naa ngoon naa ngoon bi Westfield waaye bi ma ñëwee la ma gis mooy ne pour problème bi mu ngi xàppoon comme like boori Kanifing area soo si laa dégg ñu ne ma rey nañ ci benn journaliste bi ñoo wax Omar Baro que Latrikunda fii soriwut suñ boor la fii rek ak ay xale loolu rek laa ci yëgoon waaye TRTC bi ñëw na ba wan ñi ne du doon fii rek la affaire yi xàppoon xam nga keroog bi may xool di def euh, ki doon to TRTC bi ki nekk dëkk London noonu di wax doomam ñetti xat biñ ko jàmbal ak lim ci daj jóge na fii pour dem ci lopitaan ñetti fan ñi ko ci lopitaan laaluñ ko waxuñ ko dara tray na moom on on on système moom pour war a tray jóge jógee ko fi yóbbu ko loo xam ne Dakar ak coono gi mu ci daj te mu jégu dund xam nga loolu dëgg dëgg loolu comme léegi dafa mel ni kom góor boo ne kooku góor la euh, Gambien la dafa mel ne lan la Gambien yëpp boo ne xale bi tamit xale Gambien la lan xale Gambien yëpp xam nga loolu dafa fekk loo xam ne nii dafa ñaaw loo xam ne nii daal kenn kenn mënu ko wax waaye su ko defee ñun Gambien si ñu jël si jàngat bàyyi waat suñ xel ni lii war nañu seet lu ñoo def ba lii war a mun a dootul amaate ba pare ñuy woon ko mun a solf waaye li ma gis daal mooy dat government ba government bi daj ku ci nekk daal sa intérêt ma fa toogoon man nag su desee si man mi lay waxaat nii ku ci nekk loolu lu waa wax ci teg si yow rek dañ ko teg amul baalal kenn man bu dekkee man la amul ku ñoo baalal parce que suñ baalalee ëllëg dafay taxaat leneen xàppul parce que government bi moo fi nekk ëllëg mun naa ceeñ beneen government ñëw kooku melaat beneen bind beneen beneen beneen melukaan woo xam ne lii mu fay ñëwaat amaat waaye suñu wanee ne lii dafa war a nekk suñ on situation boo xam ne Gambien si yëpp war nañ cee mun a jàngee ñu doxal ko képp koo xam na loi tegu na la nañ ko teg si yoon waaye man pour man bu desee man la duñ baalal noo bari parce que neexut man mi lay waxaat ni sax rey nañ suñ mbokk ñun suñ mbokk sax rey nañ ko si mooy Mamour Cissé ak ñoom kii suñ mbokk lañ soo di nekk si minute danga daal ñaaw ñaaw kañ la si april 10 and 11 bi ndax in a separate situation loolu loolu ñoom mooy ñi wàcce woon jógeen amérique wàcca fii nii mooy jongala si xaama ñu di nekk si ni dañ leen yóbbu ray leen biñ leen di dew pour ray leen ñu ne waa yi seen boos euh, na leen soo leen demee ray leen ngeen dagga daggatee leen yooyu yëpp dégg naa ko si théâtre si man boo ma ko déggee si bi laa ko mos laa ko doon di gëm waaye ko ma doon nga ñëwaat 11 bi li yàppoon mbir kàmma mosuma koo parce que ndekete trois du Gambia lépp yëpp yëpp yàqu-yàqu mu doon xam ñun xamuñ ci dara TRC te fi mu nekk nii ñëw na ba nga nañ yooyu yëpp man si laa ko xamee. kon yow mënuloo baalal ñu toog di testify testify ba pare ay baalal ma dama doon nekkoon ndaw moo taxoon ma def lii ak lale yow su dee yow yow doo leen baalal. non non man bu desee man la duñ baalal nobody parce que lii problème mi ku nekk yaa ngi doon li ma la wax ne sa own interest nga fa doon daw because war nga mëna sét plan bo mëna jaar bëm wona na yow sa doomi rew mo la ñor sa dëkk mo la ñor nga jëma sét benen pexé bo xamna dang ci jaar ba rëcc gambia rëcc ko yow mëna waaw ya um, nge gis na tammi 3 years ba nge ñew jot ci so setlo ci lu xeewoon april 10 and 11 ndawi la gënon na afek amna ndaw yu bari yu ñaaka semba ken bété nak tammi right now ndawi ñoo gëna a nekk di waxtaane ay 3 years uh, be and every Gambian is concerned about these three years and five years journey yow lu si sa xalaat. non loolu dafa dépend xam nga tey fi mu nekk nii ñu ngi ñëw ne three years xam nga three years bi li ko li ko cause mooy Gambian yi ñoo war a seetaat seen bopp ci kaw ne lan dat government bi muy war a sosu government bi bi muy war a sosu kan moo musoo na xalaat ne government bi dina fa génne government ba jos dañ doon dem rek ak ndimbali yàlla yàlla dimbale ñi gars yi ñoom ñoom seen boppa ñuy waxtaane ba d'accord ci kàddu yàlla loolu ñaan ko nangu la xam nga ñoom xamuñ sax liñ def liñ def yàlla moo ko def nekku ñoom ñoo ko def de yàlla moo wan moo wan ga moo leen kondir ñoom ñëpp ñu mun a toog waxtaane na nañ booloo ñu ànd suñ ko deful lii du mën a ceeñ soo ci biir loolu ñu defoon seen agreement agreement bi nag agreement boobu gars yi ñu ngi si sax waaye tey ñoom ñi ko xam ne ñoo neewoon coalition coalition bi ànd war a def programme boobu noonu pour war a ànd nekk benn boo leen laajoon fi ñu toogoon di waxtaan ñu ngi ko doon waxtaanee de waaye ñoom seen bopp ku teg karoon àggoon seen xol yi laaj leen gëmuñ noonu da gëmuñ na woon ne suñ ko defee sax nguur gale dana fi jógee ndimbale yàlla moo fa nekk su ko defee comme loolu àppoon na lañu war a def mooy na sant yàlla ñoom yàlla def na Gambien si nangul leen déggal leen yàlla kondel leen bañ oteel leen ba nga xam ne léegi wii nañ ci biir ñoom lañ doon agri du doon agri boo xam ne ñoom lu leen wër la koo ci xaro xaroon xolam dana la leer na la gëmu na li ñoom li ñu doon def noonu gëmoon nañ lu lu war a nekk la yàlla moo ko yàlla moo ñëw mbiram rek mu sotti su boobaa la war a def mooy sant yàlla fàtte ne waa ah comme demee na noonu léegi ñun ñoo defoon collection pour wane ne dañoo dem réew mi dañ ci niit pour mu soppandeku nañ àndaat ñu jàppalante ñu liggéey fexe naka la ñoo suqale réew mi mu dem kanam moo gën ñu nekk ci ay tries fari tries ak ay politique ak dugg fii jaar jéem a seen naka la ñu war a feree dëkk bi ba mu jog avancé yu passé yu yàqoo yëpp ñu fexee defar ko ba mu def tegu ci yoon waaye waroo ñëw mun a nekk di waxaat ay affaire xam nga soo gisee tey ñuy tal three years ak five years ak yooyu noonu li fi government bi nekk la waaye dama ne nag gëmuñu woon ne government bëri dafay jógee waaye suñ ko gëmoon du doon demee nii mais gëmuñ ko woon dañ doon dem yàlla dimbale ñi si kon suñu yàlla demee ba loolu xamoon lañ war a def mooy nañ seet ñun naka la ñoo seet ba defar kër gi ba kër gi defar yàqu-yàqu yi nekkoon foofu ñu defaraat ko ah, ba mu koree ñu dara tal leneen trieste bi arrange wul Gambia li arrangé Gambia bi mooy comme léegi loi yu baax yi nga xam ne moo fa newoon ñu fekk ko fa ne moom dañ ko fay bàyyi ya bon ñu génne ko ya baax ya fa nekk loi bi ñëw na léegi five years moo fi nekkoon léegi five years bi dëgg la tey fi mu nekk nii xanaa ñàkk xam nga nag Gambie ni ko ñuul au oh Afrique ñun Gambien soo ko espèce ñun Gambien xamuñ lu ñu jig xamuñ lu ñu baax si ñun ñun daal toujours keroog sax dama ko ne ko soo ko seeloo ñun dund bi ñu doon sax moo gën ci Gambien si bi kon Gambien bëggul jàmm Gambien bëggul lu ko dimbale Gambien bëggul lu ko eete Gambien daal ñoom always nañ nekk si struggle fii dugg fii jaar fale coono bu dul jeex ñun lu lañ xam dëgg la dañ ko dund nag dund nañ ko because ñaar fukki at ak ñaar du caaxaan si coono lañ ko dund solof tey fi nekk soo ko seetloo tey ñu ne démocratie sax Gambien xamuñ démocratie ba léegi sax xamuñ ko fii nekk di benn ten years twenty years si kanam mooy tax Gambien ñi mën a xam ne ndax démocratie lii la wala du lii fekk de démocratie démocratie dafa ñëw pour defaral la yow sa bopp pour nga xam ci yow yaay kan ba pare xam yow li nga téye lan la xam sa réew lan la démocratie pour loolu la waaye three years five years yeeg yooyu noonu ay politique fii yàqalante yow ñun amuñ dara dëkk bi mu ngi paan fu nekk yaa ngi yàqu fi nekk mi ba waxtaan ak xel pour réew mi mun a dem waaye war a ñëw mun a nekk ci politique ku nekk di xëccal sa bopp mooy comme li ma la wax rek Gambien ku nekk sa intérêt ngay dawal rek ku nekk léegi nii sax right now sax government bi ña fa nekk ku nekk sa intérêt rek ngay doxal intérêt nag bi ngay doxal noonu da nga war a xool balaa nga koy doxal ndax dina baax si yow ëllëg wala ndiit parce que amul lu dul am amul loo xam ne du jeex si àdduna because ba dee amee rek nga war a xam ne lu nekk dafaa jeex loo ci munte nekk nekk dee dafa am so balaa ba nga xalaatee ne dee am na rek war nga xam ne kon lu jeex dafa war am lan mooy nekk sa mujjanteel kaado si ñoo seet waaw li mujjanteel kaddu bi mooy ñun Gambien si maa ngi leen di sant ñu bàyyiwaat suñ xel suñ bëggee Gambien mu nekk ñu Gambien nañ ceen suñ xol fexe jéem a yërëmande yërëmante ñu ni neen jéem a bàyyiwante xel ñu ni neen jéem a dimbalante ñu nu reen bañ ku nekk dawal sa on interest suñ ko defee rek du baax nañ dawal on interest réew mi ak suñu morom ak suñu rakkat suñu yaay suñu papa suñu suñu sal waaye boo daw ku nekk bu dawalee sa interest rek réew mi du baax sa kër du baax sa réew kër sax soo ko seetloo ña fa nekk tey fi nekk nii soo nekkee ci kër ga jiite kër gi di dawalee sa interest genn boor sax kër ga du mën a correct bu dee si jabar yi la sax boo eeneloo sax kenn sax kër gi du mën ko correct bañ nit ñi xam ko sax doo ko mën a correct du booy kër gi xam ko sax kër gi du correct du relew kon li am solo mooy nañ fexe teg mbir yi yoon bàyyi xel ne fii àdduna la ku nekk dañuy jaar jàll rek waaye su ko defee ñu fexe ba rafetal loo xam ne ne daan rafet fii rafet fële fii moom du mujj ku fi yàgg-yàgg lu mu yàgg da nga dem loo fi nekk place du mu baax baax dana jeex so su ko defee li may ñaan gambien si ñu bàyyi waan suñu xel ñu yërëm mante ñu bàyyi dawal interest too much interest ku nekk di dawal sa own interest too much nañ ko bàyyi waaw tant que bàyyiwuñ ko Gambia nekkagul ñu Gambia de ku nekk daal suy dawal sa own interest seetuloo sa fin sa raka bi nga dëkk sa oo sa mag bi nga dëkk oo sa waxuma laa keneen sax dëkk bi du mën a dem. sir. Yes, good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Abdullah Abdullah Barrow. Uh, Abdullah Barrow, are you have you watched the testimony of the former Vice President Aysedun Jaisedi on TRS yesterday? Yes, I did. I watched it. I watched some part of it. Yeah. From what you have watched, what, what how do you see the testimony? Uh, well, it's very disappointing. It's very disappointing to the whole nation. Well, Vice President was not is not expected to behave like this, act in this way. Yeah, was also not trying. He was trying to run away from uh, responsibility. Yeah, because somebody or someone already came who mentioned that uh, he gave he, she gave the order, but she was trying to deny all that and to deny to run away from responsibility. But it doesn't matter what she's still responsible. But she was acting as the president. She cannot deny. Even she deny in public, but still she's respons- it's her responsibility. But she was acting by then. Yeah. Yeah, from denying from denying from responsibility, like you said. She also said she was not aware of the April 10th and 11th demonstration that happened back in 2000. How do you see that? No, what I it's very disappointing, honestly, because she was telling she was telling the commission that for, for 22 years she was uh, not aware of all what was going on, and but she was because the hand was in honey, she was enjoying actually, so they can only sign and they even asked her, why not you resign? But she says she denies she was not aware of what was going on. Of course, she would not be aware because she was enjoying this. It. So this is what I, this is how I, my own perspective about the issue. She was just trying to run away from responsibilities. And week is late. She cannot run away from anymore. Yeah, yeah. She disappointed the whole nation. Everyone, everyone was disappointed, honestly. A vice president is somebody served as a mother of the nation. Yes, it was. Uh, obviously, we are all disappointed. Yeah, and she also made, made she, during her, her testimony, you, you, can see that when, when the commission asked her questions, like she would be like, I don't know, or I forgot, or I can't remember. Do you think she was doing that deliberately, or is that due to her age, or because she was trying to hide something? No, not the age. She was doing it deliberately, just to hide. Week is late. She cannot hide anymore. Yeah, like I told you, she's responsible. She goes and she, she most most of these things happens in her time. She's aware but she was scared she might be fired or she might be the next victim. She might kill her if she want to deny the president not do this, what are you doing, this is not right. If she want to argue with the president or deny most of his actions, she might be the victim, also be a victim. Or she might be sacked from her position. This was she denied, what she was running away from. But there's nothing that she can say. She cannot escape anymore. Yes, he's responsible fully. So, concerning to what happened back in April 2011, uh, 2000, April 10 and 11, um, most of so many youths were affected, and now we are here in these three years, Jatna. People, some, so many, the organization, the organizers, are uh, majority of them are all youths. So, as a youth, how, what is your perspective towards this? What do you think should be done, and how, what advice do you have for those organizing these three years? Jotna? Yes, Jotna. Well, uh, what I can tell them, let them be patient. It's two years, two more years but let them take it easy because Gambia, we know the hard time where we come from for 22 years. Though we are young, but we have seen what TRC is revealing to people. It's amazing, it's surprising, and it's very, you couldn't believe this, these things were, things like this were happening in this country. So let's try avoid anything that can bring riot or chaos in the state. Let's try avoid it because we are all youths. So we know, you don't know who's going to be the victim. Anything can happen. So let us, what I can advise them, let them calm down, exercise patience for to the pool. Thank but let's so allow the president to finish this mandate, five uh, uh, Sow. Sow waaw. ah Mr dañ dee déglu oo seetaan ci si waaw dinaa koy seetaan time so time nag léeg am na yoo xam ne sax du ma ko xool mais comme dañ koy tegaat suñ ko tegaatee ma dégg ko am na yoo xam ne dinaa ko dégg ndax anglais la am na yoo xam ne olof la ñuy wax waaw mais bu démb bu Aïssatou Ndiaye Sèye bu démb bi. seetaanuma ko mais dégg naa nit ñi daal doon wax ay xibaar ci moom la waaw. Euh, da ngaa gis ne démba bu Aysan Jaay Seydi nga ne déglu nga ko oo oh, dégg nga yeneen xibaar si bu moo testify ba ñu ñëw wasi affaire yi April 10 and 11 bi démonstration bi mu ne yëgut si dara yow naka nga gisee loolu. ah boobu ban année la amoon 2000 la xewal. waaw 2000. ah boobu de yaakaar naa 2000 boobu fi la ma fekk boobu maa ngi jóge Sénégal fi la ma fekk. waaw du boobu lañu taal fii police bi fii ah jamono boobu defe naa Yaya Jammeh dafa tukki woon de ba loolu du xew mooy mooy xale bi mooy élève bi ñu reyoon student bi ñu reyoon waaye defe naa su président nekkul ci réew mi kam mooy kam mooy kam mooy yor constitution réew mi du du vice président ah su fekkoon ne boobu xëy na nekku fi moom mën na wax ne fàtte na ko waaye boobu yàlla dafa def ne fi la ko fekk donc yaakaar naa pour wax boobu daal man pour man war na xoolaat wax bi daal que fii àdduna moom moo tax luy nit def daal da nga war a bàyyi sa xel ci lu bari ci àdduna parce que aduna lepp lo def day delu si waat moo tax def da nga war a def lu bax ndax réew mi euh, yaakaar naa jàmm fi xaj at def fi lu bax du dëgg mais lo fi def nak ci lu bon wala nga def fi ci lu bax dina ñëwaat say kanam parce que yakarna naa ñi koy poser question sax diko ko laaj ñom am nañ ci ay firnde yi leer ba pare soog diko laaj kon warna bayyi bàyyi xelam que ne mom liñ koy laaj ñoo ñu koy laaj xam nañu bax liñ koy laaj que lu mu def xam na ko lu mu deful xam na ko na wax la deug bi te yalla tax ndax yalla mom mo ëpp doole lo gis te mom mi ngi fi te ci kanamu yalla lepp dina leer te bala ngay dem sax ci yalla fi la lepp di leeree te ñom xam nañu li nga defal li nga deful man daal lo la gisé yow dal ci sa ay gis gis lu mu wa amut président su fi nekkul vice bi nekk fi luy dox ci rew bi war na xam ci yoon ci yoon vice président rew de loolu suñ la tegee ci constitution rew mi de loolu la su fekkee yaay président rew mi lu fi xew parce que armée bi jog di dal sen kaw ku len jox order du man du civil du civilien mo len koy jox voilà président bi mu ngi ci ñeneen ñi ngi ci moo tax looy def daal na nga war a bàyyi sa xel donc pour man daal wax boobu man euh, man jëluma ko daal. Euh, da gis si ay kaddu yam mu ne liggéey ak former président bi Yaya Jammeh moo gën a jafe lu nekk waaye soo seetloo moom moo gën a yaaga si euh, serving cabinet members yi yëpp nguri Yaya Jammeh yow naka nga gisee kaddu boobu. waaw moom moo ci gën a yàgg waaw wax boobu li mu firnde dafa bari kon su taxawee yow soo taxawee ñu ne moom moo gën a yàgg ci nguuru Yaya Jammeh ko ñëpp. ba pare mu taxaw ne lu xew yi bari fàtte na ko wax boobu dafa xaw a tey xel par rapport ak loolu du dëgg koo xam ne yàgg ngaat président bi ngeen yàgg loolu kon lu xew ci dëkk bi xam nga ko du dëgg kon soo taxawee tey nga ne loolu mënul ah, xamoo ci dara bu danga ko fàtte loolu wax la boo xam ne daal pour man wax bu xaw a jaxasoo la daal boo xam ne pour nga dafa dafa naqari dégg daal waaw loolu daal laa ci laa ci sama xalaat loolu la ma jox nag Ah, yow yaakaar nga ne si ay kaddu yum joxe dimba dafa nekk di ndoba dara o dafa pare wut wax dëgg bi o mun naa am nu moo waxee ne mënut a fàttaliku loolu moo am mënut a fàttaliku. waaw dafa wax wax bu gàtt rek xëy na pare wut wax dëgg bi loolu laa jàpp mais lu fi xew daal ci diggante bi euh, fàtte xaju fi ndax caméra yaa ngi fi euh, mais lépp lu xew caméra yaa ngi ko nit ñi xam nañu ni ñi histoire yi xew. xam nga donc mu pour man loolu fàtte mënu fi xaj daal donc loolu laa ko jàppee. Euh, euh, naka yaa yaa ngi gis ne three years baa ngi jot si euh, soo ko relaté tamit ay April 10 and 11 2011 lu fi xewoon nekk lu doy waar naka nga gisee loolu an lan nga yaakaar ne three years jot na bi su succédé ban impact la mu am si life Gambian si. three years Adama Barrow ba muy waat. pour jël réew mi dafa wat ci 5 years 5 good years la wat ne mom lay réew mi xam nga Gambien yi dañu wara a parce que réew dafa am constitution wax bi nga waxu parti la loolu parti la mais li loi bi wax constitution bi wax ko mom mu wat ne dina téye réew mi ci juroomi at Lolo la wat te nit nak du wat ne dina mi ci at ci constitution bi wat three years mom wax la pour man wax bu la. pour man nit da ngay xalat li nga xamne moy yon nga diko wax dafa pour five years du five good years la wara tok constitution loi limu wax moy moy li am waxu parti nak affaireu parti la ñom ñoko wax waxu parti la not du du loi la loi mi nak wax am du deug su nak dafa seven years mais loi bi dafa ne five years la wara tok te la kon nañ leen respecté constitution bi du dëgg ñu bàyyi Adama Barrow mu liggéey liggéeyam te ñu ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàmm réew mi jàmm rek lañ ciy ñaan yàlla jàmm rek moo fi xaj ñun soxlawuñu fitna li ñuy ñaan daal mooy yàlla na fi yàlla wàcce jàmm ju salaam bu neex ñëpp xaj ci ndax li ngeen doon dund 22 years yi baase ci gannaaw gënoon naa penc li xew waaw du dëgg kon nag bàyyi leen ko mu liggéey rek te te ñu yéene ko jàmm rek te xam ne jàmm mooy seen jàmm yéen fitna mooy seen fitna du dëgg réew mi dafa ndaw bàyyi leen ko mu liggéey liggéeyam yàlla dimbali ko dooleel ko ba ay projet am yegg projet yegg projet am yeggul su mandat am jeexee dafiy jóge du dëgg bàyyi leen ko ba mandat bi jeex mandat am su jeexee ñu dem élection élection suñu demee nag ki yàlla teg ci bopp réew mi toog ndax yéen ñëpp a bokk réew mi xam nga man loolu laa gisee sama xalaat loolu la ma jox de delluwaat seer na te weer bu dee nit taxawula tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu ba mu set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yi yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi koo jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal su Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi koo jaayee si cash muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junne dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy euh, fay ndànk-ndànk ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benn weer ah dama ne Kayra Show Properties njaaxare jeex